haa wala duniyaati haa wala duniyaati shukran shukran shukran shukran shukran shukran shukran shukran téléspectateur Wala Duniyaati TV ñu ngi leen di dalalaat seen émission Seydi Mouhamed El Cheikh a transformé ma vie tey nag ñu dalal euh, ki nga xamante ni mooy euh, Seydi Mouhamed Sall nekk ci daayiratul iman Tivaouane Peulh donc Seydi Mouhamed Sall merci ci li nga nangu suñu invitation donc xam nga concept émission bi ni muy demee donc xanaa ñu bàyyi la nga nuyoo téléspectateurs yi d'abord ensuite ñu commencé. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk internet yi seetaan yëpp macha allah di leen nuyu yow soxna Khadija bu baax macha allah. waaw di am contentement tamit di jiital ci nuyoo bi suñu sang bu bi nga xamante ne mooy Mawlaay Seydi Mouhamed El di yu mbokku taalibe yëpp tamit waaw di leen wax tamit am naa contentement ci bi ngeen ma invité fii macha allah ndax lu ma yàggoon a namu la ah, si barki sànq bi macha allah. donc Seydi Mouhamed Sall est nga ñu euh, defal benn résumé bu ndaw rek ci sa dund ngay xam Seydi Mouhamed El Cheikh. Euh, sama dund avant maa xam Seydi Mouhamed El Cheikh mën naa ni dund boo xamante ni si parfois dama koy fàttaliku sax sama xol tooy waaw parfois dama koy fàttaliku sama xol tooy ma ni man est-ce que naa sax di ànd ak sang bi parce que su ma xalaatee démb. dañ doon dund comme si ka sax yàlla amul parce que ñun lépp loo xamante ni suñu bakkan la rek loolu la ñuy topp chaque instant ñi ngi xalaat comme que dëgg nañ suñu activité premium rek buñ paree ñu ngi sañse ñu ngi dem def yoo xamante ni bul <laughs> comprendre wala ñu ngi wala ñu ngi dem ñu ngi dem maanaam dem doxaani wala dem soirée loolu rek lañ tënkoon suñu vie comme ban motif moo xew ban watif bu bees moo xew fii la ñuy dugg ñu daal loolu rek moo nekkoon suñu kii nava yoo xamante ni après ngay comprendre ni yow li nga doon def dara baaxu si yàlla def nag mu passé ay étapes yoo xamante si nii léegi laay doog a comprendre ni li lëndëm bu metti la woon waaw parce que sang bi fi ma jëlee moo sori. donc ñu des ci fi mu la jëlee ba tey balaa mu euh, balaa ñuy ñëw ci fi la indi donc fi la jëlee ba tey bëggoon nañ gën a ay leeral comme da wax léegi say wax nga ne ay tooxi doona yu bëri suñ ci bëggoon dañ ci bëggoon am plus de détails rek par benn bu si njëkk bi moom xam naa day doon rek euh, si cadre sama fit lépp sama maanaam lépp sama fit moom moom moom moo ko doon yóbbee waaw parce que dama dama am waa ndokkoon li ko dama dëgër bopp dama dëgër bopp ba pare am fit lépp lu sama xel xalaat rek sama fit bi fit bi moom pare na bu yàgg moo tax ma doon dugg si ay détails yu bari yoo xamante ne si nii doo sax comprendre parce que man dama doon wax man àdduna bi maanaam nit ku nekk da xool li sa intérêt ak li lay may xaalis nga def ko tax na bañ dem bay dugg si yenn yoo xamante ni sax après da xam ne lii sang bi rek moo ñu si mënoon a génnee parce que bu ñu xasoon ba dugg sànku nañ baa dan loolu moom xam naa ko moom buñ ci duggoon safara buñ dee safara lañ jëm loolu loolu dafa leer nañ moo tax parfois nga rencontré ay gars yoo xamante ni si nii <laughs> da ngay bëgg am xaalis wala yu demee noonu daal yoo xamante ni doo ko mën a sax comprendre mu lëndëm gi dafa métti métti métti ba nga xamante ni si nii su ma koy wax nii sax damay damay damay yàlla xam na ko ndax ndax topp sa bakkan rek bi may bàyyi jàng di dugg ci daw sareet te boobu noonu essanwu noonu <laughs> essanwu noonu li ko wënde woon mooy ba ma bàyyee jàng maanaam lépp ne day day mën na tourné waat tamit ci cadre xarit bu bon te mën na tourné tamit ci ñàkk conscience daal parce parfois di nga dund mel dof sax moo lay tane parce que mën naa sa xel mi day tëju tëju carrément ba yow doo xalaat dara. donc da nga jékki-jékki rek donc nga ne man daal amatuma envie jàng donc damay dem dawali seeret wala nekk apprenti quoi je pense que loolu la woon. ma bàyyi jàng rek ma ni boobu xalifa góor xalifa góor teg ma di ma laaj la ma ne ko man ñaar rek sama objectif mooy dawal saret si man waaw. ma ne ko cadré mais malheureusement. man boobu noonu sama fit bi bari woon na ba gisuma woon dara maanaam boobu xale lu ma xale la neex ngay def. ñoom réussir nañu pour regarder la tànk teewul euh, je sais lan la ñu def pour arrêter la ak euh, aussi fu mu mujj. waaw xalifa xale comme xalifa góora moom moom mun naa leen sax jàpp dóor dóor nañu dóor yi metti sax. waaw pour pour pour ñu pour ñu bañ a dugg si dawal sareet wala bànn dóor na ba ba ñëpp ne su ma xëyee damay lekk ni mais damaa xëy rek taxaat sama fas dem liggéey ndax instant taay maa man comprendre nu mu woon sax man lan moo ma arrivé woon noonu ba ma ba may def yenn tuuxi du nay ay gens fii tux fii dugg si yoo xamante ni doo comprendre sax moo tax après bu la si sang bi génnee da ngay xam ne lii ndimbal moom kese moo ko mën parce que jaaroon naa fi fu nekk doon naa fi chaque année ma dem. période boobu ban âge la commencé dikkal loolu loolu noonu ngay wax. voilà à l'âge de treize ans quatorze ans jàpp quinze ans ma commencé dëgër gën a xàmmee ba pare yor fit boo xamante ni si lépp lu ma bëggul def kenn mënuma koo def loo du dóor du daraay tax ma def la ko man damaa man demoon ba yamale lépp. da nekk di dund dund boobu ba kañ. ma nekk di dund dund boobu ba commencé am génn 15 ans entre 16 ans commencé ci laay doog a déglu waxtaanu sang bi fekk ma koy déglu waxtaanu baa Babacar Sy bi laa déglu. donc balaa balaa loolu ba tey ñu des ci sa dund avant ba tey euh, à part loolu je que am na beneen boo xamante ni aussi yaa nga waroon expliquer mooy demoon nga ba bëgg a adhéré ci franc-maçonnerie expliquer ñu détail yooyu nu ñu demee ba pare. waaw jamono jooju man nag dama nekkoon nit koo xam ne damay damay gëstu maanaam damay dugg internet gëstu. di seetaan ay signe faramason parce que da nga doon déglu parfois xam nga dama doon dama doon rap am na boo xamante ne dama doon rap dama doon déglu parfois ñu naan ay rapport nangam faramason la di ko wax ci internet bi muy dugg internet di gëstu noonu laa defee buy noonu laa demee buy dugg ci ci di gëstu faramason yi nag commencé di leen gëstu di xam seen signes yi xam nga dem ba. ban site nga doon kii Facebook wala réseaux sociaux yi wala dafa am yeneen noonu laa demee ba ba ba am na sama benn xam nga damaa bëggoon Chris Brown <laughs> dama doon dund kaana bi daal <laughs> ci laa demoon ba ba ba rencontré ay fans yoo xamante ne ci biir fans Chris Brown ay formation la ñuy nekk. léegi nag ñoom ñu bëggoon la ci dugal. voilà ngay waxtaan ak ñoom ndànk-ndànk xam nga dem ñu lay rencontré ay numéro ngay rencontré même Sénégal fii sax amoon na ku ma demoon boo xam ne yoroon naa numéro am formation nit woo na ma waxtaan naa man di ma woow ay ay xaw ma sax diir bi lu yàgg ñuy waxtaan man ak moom mooy expliqué dañ lay envoyé benn fichier fichier bi nga remplir sa turu papa sa turu yaay xam nga ñu am seen logo formation yi nga remplir sa tur ñu laaj la sacrifice ak yu demee noonu daal mais. demoon yow donc demoon nga yow ba ba pare daal ba dugal yooyu yëpp enregistré sa kii ba donc ñu considéré lép comme membre euh, ci formation yi. waaw bi may dugg bi may dugg bi may avant ma ma ma ñëw ci seet sang bi moom boobu moom pare woon naa pare woon naa définitivement lépp. lépp loo xamante ni laajoon nañ ma ko rek man pare. jotoon nga def ay sacrifice. jotuma def sacrifice mais pare woon naa da pare woon naa pour def ko. maanaam bi ngay xam sang bi ay ñaata kii maanaam lan ba ñaata temps moo ko séparé ci ba ngay waajal sa sacrifice. boobu yàggul yàggul yàggul noonu de parce que li ma li ma doon xalaat yëpp mooy <laughs> dama doon def sama xel sax après su mën naa dem ci sang bi yooyu yëpp dama ko doon xalaat un avant mais dama dem ba si biir man il faut dem nekk faramaçon pare demaat ci sang bi est-ce que dem ci sang bi directement gënul. sama xel yéen mais ñu des toujours ci cadre sacrifice bi dama bëgg a xam maanaam foofu ñu gën ko leeral maanaam yow danga pare woon tànn ñi nga xamante ni yow tey buñ la waxoon sacrifice ñii la nga dem ba jàpp ni xëy na jour tel laay def sacrifice bi Euh, aussi je pense que am na loo ma doon jot a expliqué ci la dernière fois bi ñuy waxtaan que maanaam da tellement que yaa ngi doon expliqué sa fit ni mu rëyee que benn sacrifice la ñu laaj nga ne non man du indi déen benn ñaar <laughs> laaj mu ne ma boo demoon bu ñu demoon instant bi parce que ñun instant bi dañ lay wax li fi nekk mu ne ma kan nga pare pour joxe sacrifice ma pare pour jox ko ñaari sacrifice. mu ne kii nag moom alors que benn lañ ma laaj moo tax ma ne <laughs> kii nag moom yi moom am na fit kii lañ soxla pour joxe ñaari nit ba ba wax seen tur. ñaari nit ñoo ñan lañu. <laughs> ñaari nit moom xam naa dama koy bàyyi. amul benn problème. <laughs> waaw <laughs> mais daal après daal dafa man mënuma ko imaginer ba tey bien sûr demoon naa demoon naa ba nees man maanaam da ay littu ay tent yooyu rek moo nekk si ay ay ay ay yooyu noonu ay bënn bakkan fii bënn man demoon naa ba jël décision damay bënn sama bakkan ak sama ñaari nopp. moo tax man bu ma déggee nit naan sang bi nangam sangam lu tax ngay topp sang bi man dama lay bàyyi si biir rek parce que damay xam ni sang bi fi mu ma jëlee yow soox ji mënu ma faa jëlee damay dem ba xam ko demoon naa ba ñaata la ñuy bëndalee nopp man affaire bi mënu ma ko imaginer ñaata lañ lay bëndalee nopp ñaata lañ lay bëndalee say bakkan lépp lu jëntoon naa ko ba des fi lu dul vendredi jot ma dem marché vendredi pour bënd bakkan bi après sama xel daf ma yedd mais nag sama ra ma. nan loolu di ñëwee nga jékki-jékki rek donc sa xel yedd la loolu nu mu demee. parce que parce que parce que boobu maa ngi doon maa ngi doon commencé di suivre sang bi di maam parce sang bi dama ko yàgg a bëgg maanaam di première fois ma dégg ko rek dama ko bëgg yàlla. dañ ko dégg euh, xam naa jàpp ma ko noonu nag jàpp ko noonu mais bu ma koy njëkk a dégg su ma jumul ay côté 2016 yooyu lay doon. mais ma ko dégloo automatiquement dama ne sama papa kii de nitu yàlla ndax kii li muy wax kenn mësu ko fee wax lool loolu laa ba sama papa jëloon benn carte sax joxoon ma ko ay saabu noonu pour ma pour may déglu waxtaan sàgg bi. bu ma ko njëkkee dégg xam nga fi ma fi ma fi ma dëkkoon dafa bari ay détracteur foofu moom ay dét yëmbal yëmbal laa nekkoon dafa bari ay détracteur dañuy saaga di wax lu maanaam dañuy wax du si qui dañuy jël ay kàddu yu ñaaw di ko di ko teg ci koo xam ne xamoo ko mosoo déggoo waxtaanam dégluwoo ci luy wax amal loolu réer ak sànq foofu la yem ñoom bu nekkoon déglu nañ sang bi sax wala dara man dinaa mën a toog am lu ma loo xamante ni dinaa ko mën a interview daal mais ñoom duñ déglu sang bi duñ wax dara te boo waxee ñu rëy làmmiñ ñi da ngay xadar xadaralal sa mbalaan sox ñu lay saboote. dëgg mais ñu des toujours ci cadre maanaam sa transformation bi ngay door a déglu sang bi. maanaam da yeew rek commencé déglu sang bi après nga commencé di julli di woor wala après nga je sais pas en fait expliquer ñu processus bi nu nga yeew benn jour transformation bi nekk lu radical wala dafa def progressivement wala. waaw bi ma déglu nag man ci laa commencé nag di di di julli daal. ci laa commencé temps moom <laughs> maa ngi doon julli ndànk-ndànk commencé parfois ma julli gee tëdd parfois du ma julli gee tëbal ci noonu laa commencé di dem ndànk-ndànk mais daal da ngay da ngay da ngay jékki rek def nii jekki defaat lii maanaam boobu gëm gu dëgërul la daal la ngay gëm jaan lii tey souvent nga gëmaat jaan le ay côté 2017 jàpp 2018 côté boobu ay ay côté boobu loolu ndax ndax maa ngi ko ndax man dama mës a kaasal sang bi parce que man li ma leen doon wax toujours mooy ak nu mu mënti demee rek bu leen ko kaasal dara parce que man dama leen Seexu Tijaan dafa bari njaboot nekkul yow maanaam da nga naan man Tiwaawan laa nekk wala man ni Medina Baay laa nekk rek fii la affaire bi rek keneen man leen man loolu mësuma ko d'accord man leen xale bu ndaw bi sax génnoon ne ma taalibe Cheikh la boobu maa ngi door a xam sang bi mais boobu man dama dama ko mës a taxaw di défendre ci ñuy jëkkati kàddu di ko teg si moom mu leen ak lu mu mënti doonee moom muy julli te xalifa góor ñoo dëkk 4 heures du matin day jug avant 4 heures du sax boo yeewoo da koy fekk ci ëtt mu toog waaw loolu boo yeewoo da koy fekk mu toog sol jàllaawe bu weex tàll toog ci si yaa daal <laughs> benn jour sax maa ngi naan sama yaay dama génn rek gis xale bu góor a tiit affaire yooyu ndax heure bi mu jug noonu di si kër <laughs> waaw ma yaakaar ne jinne la wala y demee noonu moo tax man man leen kon nag man aw ma benn loo xamante ni mun naa koo kaas wala loo xamante ni mun naa koo sikkal sang bi parce que ñoom dañuy julli dañuy te liñ fonkee julli gisuma ku ko fonkee julli waaw quatre heures du matin ku koy yeewu ci ci ak fi jamono bi toll noonu nga paa yi sax duñ ko yeewoo jeune xale mu ndaw di yeewu quatre heures du matin man leen kon kooku bu leen koo kiitiga ndax yéen ñii di wax kenn jëlu ci wet ñooñ noon doon kiitiga sàng bi kenn jëlu ci wet ñoo du kenn jëlu ci wet ñoom ñëpp kenn kenn mun sañul taxaw ne la man jël naa weer ba pare di classe koo xam ne quatre heures du matin lay jug di julli wuji fa doog a a dem doxi ay am donc yow loolu bokk na ci li la alerté maanaam euh, comportement Cheikh a ak comportement ñi nga xamante ni gëmuñu dara ba pare di critiquer. loolu bokkoon na si li tax ma xam ne Khalifa Gora nekkul nekkul ci caaxaan. waaw bokkoon na ci li tax ma xam ne kii lim ne man dem naa nenaa naa kii lim nekk bu dul dëgg dëgg amul man man wax naa ko parce que parce que ñun dañuy nelaw ba 10 heures jot ñu yeewu def li ñuy def dem liggéey moom 4 heures du matin fu ñu yeewoo dañ koy fekk seetu yi mu toog ma ne kon kii bu nekkul ci dëgg ñun lépp ñoo def fii dara loo xamante ni si ni dëgg la. tey ji jël nga wér. waaw tey ji jël naa wér. nga jël wér. Euh, maa ngi jël wér de 2021 bi laa la la la la laa jël wér mais mais njëkkoon naa jël wér. waaw ban année nga jël wér. moom jël naa wér. pour la première fois quoi. pour la première su nekkul deux mais man dama ko jàppee maanaam ñàkk kilifa. waaw ñàkk kilifa laa ko jàppee parce que nit ñëw jox la werd ci oto boo xamante ni si oto bi bi muy bi mu lay jox werd mi ngi waaj a départ. mu ne nii jox na la werd nga dem nga déggatoo ko fenn gisatoo ko fenn kooku xam nga werd boobu kenn xamul werd lan la. werd boobu kenn xamul werd lan la moo tax daal man ma moo tax bi sang mi naan am kilifa ma ni am kilifa ci la. donc bi nga jëlee weer ci sang bi yan changement nga commencé di constaté waat ci yow euh, euh, euh, li nga xamante ni uute na ak xëy na li nga xamante ni ñoom Cheikh Gora jot nañ ko def si yow ci influence bu positive. waaw moo jëlee weer ci sang bi nag dafa dafa da lépp loo xamante ni si maanaam ci laa bàyyi lépp <laughs> man daal ci laa nekk nit correct automatiquement parce que jour bi muy sama rendez-vous sang bi ba léegi daf ma jaaxal ndax bi may bi may ñëw ci Cheikh Daouda di ko wax benn Facebook la woon sax ma commentaire am benn photo ma commentaire macha allah. yaakaar naa Pape Adama Pape Adama Ndiaye moo ma joxoon numéro sang bi boobu moo ma joxoon numéro Cheikh Daouda ne ma xoolal kii bu dee da ngaa bëgg gis sang bi ma jox ko sama numéro Facebook am waaju ma woo Facebook 23h naa ma damaa gis nga commenté ci photo sang bi mu naa ma kooku xoolal mu ni ma kooku du kilifa yow nit ki nga jël numéro boo ko yàqal ko nelawam 23h ba pare naan ko ki kii du kilifa nangam sangam léegi loolu ban intérêt la ci nit ñi di am yow koo xamante ni gëmoo leen gëmoo lim gëm. mu kuy julli mi ngi jaamu yàlla ngay julli te yow li la lislaam wax sax sa mbokk yow sa diggante yow jullit bi waroo leen xuloo wala di ko xas mais yow ki xam ne moo la dàq jaamu yàlla lu koy kiitige ba koy dem ci moom nga ni da ngay da ngay dévier yoon bi moo tax loolu tamit ñàkk gëm yàlla dëgg la <laughs> loolu moom mën naa ne ñàkk gëm yàlla dëgg la moo tax après ma jëlee rendez-vous ci seex Daouda affaire dafa gaaw si man sax parce que xalaatee ma ko woon noonu dama jël rendez-vous su ma juumul mercredi jeudi mercredi la ma Cheikh Daouda informé ne ma programme naa la vendredi bi Médina Cheikh te boobu instant boobu dafa maa bett boobu 2021 bi la ci 2021 bi la waaw. waaw c'est la première fois Maodo gisee sax moo tax gëmeewu ma ko instant woon amoon naa stress bu garaaw <laughs> waaw 2021 bi laa gis sàng bi laa rangot mais a waaw di boobu noonu moom laa commencé ci laa sentir dëgg dëgg dëgg ne nekkati sang bi mooy mooy mooy mooy waa ji ma mën a defar. waaw ci laa ko xam parce dama ñëw rencontrer sang bi ak euh, jikko sang bi li ma njëkk remarqué mooy sang bi yaatu bi mu yaatu ak ak téy bi mu téy man daf ma ba léegi nii daf maa jaaxal parce que muy ñëw maa ngi amoon stress lan laay communiquer ak sang bi parce que maa ngi doog ñëw fii xam nga gis ko noonu rus ko ak yooyu noonu mais dama ñëw rek sang bi yaatal ma nduy ma nduy ma nduy bu téy rek ci sens yi damaa dal laaj ma sama papa sama yaay laaj ma xari xarifa góor laaj ma mbokk yi jàmm santeeg man ba sama xol bi foofu noonu dafa mujj sedd guy guy yàlla xam na ko te maa ngi doon xalaat nan laay communiquer moom mais sang bi ku yaatu la wallahi boo tawee moom da ngay ni sax yow yaay sëriñ bi ndax yaatu gi yaatu rek moo loolu lay wax ni sang bi dafa dalal boppam wàccee boppam ak cër bi ko yàlla may yëpp teewul mu mu mu wàccee boppam xanaa nga ñàkk ñëw min na seex de mais boo ñëwee ba toog ak moom moom di nga xam ne kii yar gi nekk ci moom mosoo koo gis ba nga juddoo ba léegi waaw d' accord léegi ñun ñu des ba tey si transformation bi nga xamante ni Serigne Mouhamadou Cheikh def na ko si yaw donc yow euh, bi nga jëlee wér di sang si sang bi ba tey maanaam jour bi nga xamante gis nga ko pour la première fois ak li nga expliqué ni loolu la def si yow donc est ce que am na yeneen manifestation peut être mystique peut être des yoo xamante ni xëy na jot nga ko am ci loo xamante ni mën nga wax ni lii xam nga ni leer lay dellu waaw loolu loolu loolu loolu moom am na parce que bi ma bi ma jëlee werd ba ñibbi noonu rek bay ñibbi noonu sax laay mën naan ci laa commencé sentir lumière ci laa commencé centre lumière benn jour ma ma ma ma ma laasim ngoon gi noonu ba tëdd sama basan rek commencé di gis ay fuyu daat yuy traversé sama kanam ay fuyu daat maanaam ay boule de lumière ma commencé naan ah man kat maa ngi bëgg a jaaxle sama xol bi sedd nag ma ma xam ni maanaam <laughs> maa walla maa ngi maa ngi maa ngi doog a nekk nag ci yoon bu baax bi après ci laay demee nànk-nànk étape par étape parfois ma ma ma ma gént lii parfois ma gént ay gént ay gént parfois quoi comme mi ngi mel ni génn gént ay cheikh wala gént Serigne Babacar yooyu noonu gént wala gént xadar il y a gént gént yoo xamante ne maanaam boo paree da lay lenn gént yi dëgg la daal waaw. donc euh, à part loolu est am na foo xamante ni xëy na mës nga fa jaar ak sang bi ci loo xamante ni xëy na mën nga ñu ko expliquer muy côté peut-être mystique wala si yeneen kii. jaar nañ maag sang bi jaar nañ fu bëree bëri parfois da yu kii dig yoo xamante ne si nii day lenn lii sang bi rek moo la si mën a génnee parce que man mës naa génn suñ kër rek. gars yi gendarme yi ramassement ramasse boo xam ne man xaw ma sax ramasse lan la te boobu maa ngi jógee xadar sax mais dama dama ko woo turam benn yoon rek pour gendarme yi nii lañ def ma def nii dem sama ba léegi xaw ma lan la waaw moo tax sang bi dafa wax wax ba am importance ci discours bi mu def tey mu ne kenn ku ci nekk li Cheikh def si yow na nekk karaama si yow waaw man moo tax man moo man leen man moom du ma fi toog di xaar ay sang bi taal yat wala muy def lii ndax chaque jour sang bi ci karaama la dëkk ak man ma toll saa ma yeewoo ak muy tëdd ci karaama la dëkk ak man maa ngi gisuma jaaxal maa ngi gis soo xamante ni mosuma koo gis. voilà moo moo moo tax ma leen man karaama dootuma jaaxalati ndax fu ma tëll su ma ibbee sama bët karaama laay dajal su ma tëdd moom laay tëddaale kon man léegi nag sang bi moom amatuma fayam man daal lenn laa xam ne moo fi muy déglu ko moom rek parce que kenn mënuma ma cee génne ndax kenn ba may nekk fu lëndëm bi di métti gisuma kenn moom laa gis ma moom moo ma ci génnee moom moo tax ba julli bi yàlla di am si man muy ndaw a ndaw a moom moo tax ma am ko kon man moom rek laay gëm mënumaa gëm keneen ko dul moom ndax daf ma wax ma dégg moo woon ma lu ma gis moo tax mënumaa topp ko dul moom waaw. donc tey boo toogoon ci wetam nga am loo ko bëgg a wax en face loo koy wax nga jàpp ni moom ngi lay xool. waaw su ma toogoon di ko di ko wax moom li ma koy wax moom mooy mu xam ni ñun ñi <laughs> maanaam mu mu concentré wu si ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo topp si ginnaawam rek. ndax ñun li tax ñu topp ko ñun xam nañ ko waaw man moom ay détracteur wala keneen kuy wax ma loolu man nekkul concerné wu ma te yëngal man li ma concerné mooy sang bi rencontré nañ ko te bëgg nañ ko def nañ ko suñu xol yi moom à chaque fois rek na na bàyyi xel li maanaam ñun jaral saa fu mu ñu fekk ko si bu ñu jëlloowee jaasi nañu nañ daje ci bedd bi léegi sax ñu def ko parce que xam nañ ne moom mooy dëgg moo tax pare nañ ci lépp pour ànd ak fépp fu mu ak lu mu métti métti métti métti ak lu mu mënti doon dañ ci ànd ak moom ba jeex tàkk ci barke Seexu Tijaan. tey dajaal bu la woowoon doo daw. dajaal moo woon mu fekk ji ko buñ dajaal woon bu taxawee bu yoon ay fetal sax bu ko neexee mu yor ñu yor ay yat mu lay wan ne ñun pare nañ ci lépp pare nañ pour nekk ay compagnon lum ñu lu lum ñu wax loolu la ñuy def mu ñu tere nit mënta wax ci kaw suuf bañ def ko waaw loolu moom pare nañ pare nañ ci fépp mu mu xam ne ñu ngi si ginnaawam ñu ngi koy gunge te ñu ngi dem ak moom ba jusqu'au bout ba fépp fu mu ko bëggee ak nu mu ko bëggee rek ñu dem seeg moom waaw. yow daal mën nañu wax ni sax di Mouhamed El moom defal na sama vie yëpp te man moom léegi moom ci moom rek laa concentré wu bu lu waay wax jëlal ma may la ko soxlawu ma ko sang bi kese doy na ma sëkk ak barke. loo koy looy tontu détracteur yi say détracteur yi. samay détracteur moom li ma leen tontu mooy tey tey dafa am solo te koo dégluwul waxtaanam. mënoo ko mënoo xam ni muy wax lan la nañ jéem a jël ay waxtaanu sang mu ñu déglu ko ba pare buñ paree bu ñuy kiitige ñu xool lan la mais man li ma jig gën jaaxal ay mbokk taalibe seex ñoo koy critiqué ñoo xamante ne neen ay taalibe seex lañ mais loolu lu mën waa te seex sax sarto tarixa bi man bi ma koy jàng ci application taalibe seex bi sa mbokk taalibe waroo ko wax lu ñaaw waroo koo xas waroo koo diingaat waroo sax xuloog moom boo ko defee seex rek sa ndigg loolu la ñu jàngal ba pare yow nga dëkk ci ci classe koo xamante ni sax fajar li ma fajar li malaan comme yow te boo xewee sax laloo malaan moom moo lal kon nañ xoolaat nañ xoolaat jikko yi daal xoolaat suñ comportement yi joxaat Cheikh cër ndax loolu nangul ñëpp ci tarixa bi bokkoon na ci jox seex Tidiane cër waaw. ñu ngi lay remercier ci li nga nangu suñu invitation merci beaucoup. wala duniyaati wala duniyaati. shukran shukran shukran shukran shukran شكرا شكرا يا مولاي سيدي محمد الله